soo ma ci laajee papaam bi ko jur ak sama yaay bi ma jur seen ñaari waajur yee bokk benn ndey maam Aysata Gueye moom meññ ñaari kilifa yi maam Ngoné Ndoye macha allah di yaayam di mag bu baax di jigéen di ci roq bi bëgg ay jarbaatu borom këram sunu sang bii nag ba muy def benn dal muy fii lañ fii ñëw ba tey la ma ko ñaanaloon rek ne ko dal yi dina yokk ah gan yi dina bari sekk waasul sun mbaaw pandembe nga jéegu yéen dàq yaay sikoor Antoine yaxaraa ngi ci mbaaw ñaaña yaay Blaise Diagne kii dafa donn ay maamam Cheikh Ahmed Tidiane mi ngi tabax jàkk yi di tabax jumaay di dimbale jaami ku juddu boo ko waxee mu rayal la tudd ku dee mu dëj la yàlla na ko fi yàlla bàyyi sekk Amadou dalam yi dina yokk mu bu ne gani dina gën a yokk seexluwul ay kenn man mii mooma tabaxal sama kër gi ma dëkk Tëngéej ñu bokk ñaari sunu ñaari maam ki jur yaayam ak ki jur papaam ku ci nekk li ñu li ñu kii bokk rek lañuy bokk kon dama koy ñaanal gudd fan bu ànd ak jàmm ak salaam bu jàmm dee benn xéewal di benn sutura di benn yal na ko yàlla jox seex ak njabootam ak soxnaam su baax si nga xam ne aadama ndaw di nit ku baax ku bëgg ñépp ragal am yar am teggin am sutura. si cheikh waaye balaa ñuy wax si cheikh dañuy wax si yaay jeesa gël tàppe si Medina maam Ngoone Ndooy mi ñu ngi koy ñaanal wer di ko ñaanal guddu fan di ñaanal njaboot gi yëpp nag ak sini njaboot ak sini kilifa ñu nit waaye Cheikh dañ koy bàyyeeg yàlla ak yonent bi ñu koy bàyyi ak yàlla li mu mën ren yàll na ko mën déwén Cheikh yàlla na yokk ba àdduna bi yëpp gën ko gën ko loolu bàyyi wuñu ñun kon du bàyyi ay mbokkam comme bàyyiwul ay mbokkam du ñu bàyyi ñun ñëpp ay mbokkam lañu waaye macha allah man man day maa ngi koy gërëm di ñaanal njabootam gi yëpp di ñaanal Adama Ndaw di ñaanal yaayam yàlla na gudd fan. yaayam bàyyi koog ñun nag lu ñu bëgg suba ba ci ngoon daf ñu koy defal Cheikh te yaayam du ko nekk mukk bul def lii wala bu def ndax bu yàqoon lépp rek mu yàqu booleeg liggéey ci kër Amadou sekk maam Ngoone Ndooy ak ña nga xam ne ñoom la fa fekk ndax maa ngi dëkk seen wetu kër kër Alaaji Mbàkke Jóob di xartu doomam day roqee sekk ñu xartoo benn bakkan ñu duddul seen kanam yaroo ci seen kanam màgg seen kanam Cheikh li ñu ko xamee rek ba mu nekkee xale ba léegi reewul bewul te mësul wanewul li nga xamante moom lay def muy xéewal bi muy def nii ñu ngi koy ñaanal li mu man ren yàlla na ko man lu ko lu ko raw man na ñu taal tey ren bëri na tey bëri na juróom-ñetti mën la juróom-ñetti mën la ndax depuis bërki dem ba léegi ñu ngi togg ak a yàq xarit nag moom kenn xamul nu mu toll ndax booba léegi ñu ngi liggéey di ci ànd ak yéene nag ak Pastef ak kàlla macha allah yëf yaa ngi ne gaañ barki démb ba léegi ñu ngi fi mën nañ ne démb fukki fukki xar fukki fukki xar ak ñaar togg nañ ko ak juróom fukki ginaar ci añ bi kese reer bi ñëwagul reer bi togg nañ nag ak juróom fukki ginaar tey jii noonu macha allah daal fii dara jeexu togg naa ñaar fukki xay bëkki dem ak démb tey ñoo ci ñeen fukki xar gàmmam ji mom moom dafa dépassé nit ñi waaye ya na ko ya man bàyyi ko ak soxnaam su baax si na xam ne du wàññi dépasse man mi géew bi dama joxe dépasse rek damay doy fokk ma togg wu neex ñëpp jàppale ko nag ay mbokkam ak rakam du baan kumba ndey xadi ak awa jaañ ndeyam ju baax jeex ay deya ak ñoom ñëpp daay ku ne takk na sa ndigg ñii ñaan jàmm daal yaa na ko yàlla may ba mu gën ko man